gannaaw ma sante yàlla julli si yenent bi di gërëm sama waajur bu jigéen bi fi des xam nga di ñaanal bépp waajur bu làqu fi mu dem gënal ko fi mu jóge ñi fi des tamit xam nga yàlla may leen gudd fan ak wér-gi-yaram bu baax a baax a baax ndax ci la lépp xaj yàlla def jàmm Sénégal ndax Sénégal ci jàmm rek la xaj waaw yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def rawatina Pikine ginnaaw raay waa Jet yomb naa xam benn xale la boo xam ne fii la dëkk ginaaraay xam nga yaroo Pikine ginaaraay màggee fi defee fi léppam fii laa débuté sama carrière ginaaraay laa ko commencé xam nga ba tey yàlla def ñuy dégg Jet Li. naan la Jet Li wala dafa jékkee waa Jet bi ci ñaari pàcc la nekk quoi ndax benn def naa taekwondo. ñaar dafa amoon sama benn grand boo xamante ni Ségo la tudd Ségo Dieng mais ci écrit xam sa cosaan la nekkoon te sama idole loon ndax bi ma nekkee booy ni mu doon bëree daf ma neex ndax benn dafa agressif ba pare daa gaaw yàlla def man it ma jël tur boobu tuddee ko sama bopp ndax bëree moo ma neex quoi waaw looloo indi tur Jet Li bi man dama doon fubal dama doon football dama doon góolu benn ASC bu ñu naan ASC jàmmoo fii la ne ci koñ bi. waa góol laa waaw ah, mais xam nga tamit say morom yi ngay àndal lépp lu ñuy def yow da ngay dem ba benn instant boo xamante ni yow da ngay bëgg def loolu léegi ma boole ñaar yëpp di fu di bëre di football ba mu yàgg ma xool ni fi wéccit am na fi ma bàyyi football bi dem bëri ji waaw looloo ma dugal ci bëri. kon yow dégg du ma la déggee daa mel ni bi nga nekkee ci football bi foofu koom boobu poussé ba nga gën non xam nga moom yow yaay dem footballal sa gox rek waaye xaalis du fa am te mbapat yi dañ la daan woo fay la benn weccit nii rek nga ñëw ànd ak sa gaa yi jël weccit bi xam nga ngeen attaayee ko wala ngeen nem naanee ko meew yéen a xam mais daal lu mu dee dee dinga am loo coom waaw looloo tax quoi. waaw Jet Li buñ ko xamee mbapat a tax ndax Jet Li boo xoolee ay supporters amateur la ëpp lu ma am naa fans club nag buy dox mu ngi fii di nuyu ñoom ngañ xam ñoom aada ñoom ibrahima rawatina ñoom omar sow jetli création ki nga xam ne moo jiite lépp ak laay njaay ak sama gars yi ma foondool ñëpp comprendre tey jetli su ñëwee ci làmb kenn warul laaj ni ndax mbappat na wala mbapatul ndax bu dee bëre di nga ko gis bu xeexee di nga konta mhm. mais bëre bee ëpp pour man looloo gën a indi xam nga tey jii nii sama coow ci làmb mhm. ndax man façon jël bu ne daan naa ko fi mbër mhm. waaw du lu may ndamoo nag mhm. yàllaa moo xam may dama ko koy sante bu baax a baax damay génn dem ci àll bi di mbàppati te ñi ma ci laaleel ba léegi ñu ngi toj no bari na waaw comme ku ci mel ni tey Cheikh Ousmane bëri nañ euh, Mamar bëri nañ waaw bu caajaay bëri nañ boo xoolee René ñu naan ko gongle bëri nañ bëri na mënuma leen lim boo xoolee man presque ndaanaan yi bëri bëri nañ fi man ak ñoom ay Ibou Senghor yëpp presque bëri nañ ay mbisaan xam nga Lamp Fall géant bi bëri nañ euh, voilà te dëkkam lañ bëree maak moom Podom waaw fa lañ bëree ma ak moom. kon Cheikh Ousmane xam naa ko bu baax. jot waa jot nañoo laale. Hmm, mais boobu sama premier combat la maay doog a dem si àll bi moo ma daanoon. waaw ñooñu ñëpp presque booy xool laale naa ñoom sama mbapat daal lu si ëpp bi ma jugee Dakar fii si àll bi laa topp. nit avec frappe bi bëri naa quinze komba treize victoire non douze victoire trois défaites. kan kan moo la Mbaytin moo ma daan. Laay Pythagore. ak euh, bébé Saloum ñoo ma daan. waaw ñi ma joto a daan moom bari na moom boo xoolee tey boo limee Nandi Fall Zallo euh, Vandam Brock Energy mhm. hmm, nga ñëw Balla junior bu école de lutte Balla Gaye mhm. Laye Dougar mhm. hmm, bari nañ man fu mu toll nii mun ma jàpp waaw ñu yaa ma gën a xam <laughs> ñaanatuma bëre ak ñoom. lu tax waaw parce que nit dina la daan ba pare nga wëlbati ko raw. Hmm, da ngaa bëgg ne yow yaa raw ñu ñëw nga waaw munu ma ko wax. munu ma ko wax mais tey jii nii ñaanatuma bëre ak ñoom man xam naa li tax ma wax loolu maa ngi séentu ci kaw. Ah, gars yi demoon ba dox ci ci ñetti combat yooyu kon noo def. non munuñ ko dox ndax instant bi ñu koy rombante ni hmm. waaw yàgg na. yaa ngi leen di xeeb waaye ñoom it non ñii ñu ngi daan ñii ñu ngi daanu. Hmm. munul bokk. waaw non du xeeb du xeeb mais làmb boo gis ku ne da nga bëgg a teg tànk ci kanam. bu fekkonte ni ñu ngi ci même palier bi tey jii ni bu fekkoon dañ ma daan ba pare kon ne di daan man it may daan mun nañ dem tasewaat ci kaw mais su fekkente ni tey man danga maa daan man ma kon ne di daan yow ngay wàcc. mënatuñoo bëri kase yi sax dootul bokk waaw loolooy indi lool. jamono yi kan waaw jamono ji wax naa ko dama koy waxati tey jii nii Garga 1 na ñëw ñu bëre sama grand la mën na ma may sens. waaw ama neex ñaanu ma ko sens dañoo war a bëri moo doon tax na ñëw may ma sens ñu bëri Lac na ma may sens ñu bëri. ñii bëgg naa bëri ak bu dee bëri ñu ngi may wax ay combat mais tey jii bugguma bokk ci mbër yooyu nga xamante ni dañuy jël komba balaa ngaa dem stade amateurs yi analyser nañ combat bi waxoon naa ko dama koy waxaat ren boo xoolee lamb yiñ fi tëggagum yëpp depuis daaw ak ren yëpp balaa ngaa dem stade di nga xam kuy daal waaw parce que tey jii ni benn xale hmm. bu mel ni man suñ la joxee benn màgget nga war a bëreek moom lan moo ciy sensu màgget bi ñëpp dañuy ñëw ne ah diw de mooy favori te automatiquement noonu lay deme boo jëlee koo xamante toog na at bëriwul yow yaa ngi ci compétition munoo leen bokk li ray làmb ji gars yi waxuñu ko tànnante bi moo ray làmb ji tey jii nii boo xoolee dañ koy jël exemple ci football buñ ne Barça Real lan la ñuy wax classico la àdduna bi ñëpp koy bàyyi xel loolu bi muy am ci làmb jamono yi ñoom Modou Lo la ay Balla Gaye ay Bac Seras consort googu noonu moo fi amoon bi boobu noonu ba nga xamante ni tey ñooñu ñoo génnee làmb nañ ko bàyyi te dem liggéey ñàq liggéey moo waral lool mais mbër bi su aptee xarañ ci li muy def ku kuñ ko jox war na kaa mën a lijjanti dem yoonam ndam mbir yàlla suñu borom la yàlla mooy xool ku ko neex mu jox mais yow pareel